a eu l'occasion euh, de, voir euh, souvent. Voilà, en, lunettes euh, de soleil. je, pense tout mon temps à enseigner hmm. quand je reçois des informations. J'ai vu à travers l'écran qu'en haut on dit maison d'arrêt et vous à travers vos lignes MAC. J'en profite pour dire que une petite contradiction, c'est maison d'arrêt tout court. D'arrêt tout court. il n'y a pas de correction. Il n'y a, pas de correction. C'est un langage de l'administration pénitentiaire. Très bien. Mm. très bien oui euh, maître Thiam laata ñoo jël rek kon euh, Mame Birame ci ligne bi yaa ngi koy wax mu nekk kon ñuy dëgmal waxtu wu am solo instant bi nga xamante ni ci la kon juge yi di dugg si ngir wax euh, li yoon dogal nga ni foofu du question nit ki ci boppam mooy ñëw mais yoon la taxawal askan wi. waaw mun nañu wax sax. li nga xam ne lii yàlla moo ko moom ñu cëppati tuuti ñun nit ñi ñu koy yore di ko jëfandikoo lu li nga xam ne rek jut waxuma yàlla wala lu jëm suñ ne rek moom de moo ko délégué nit amatul foofu sax ni muy nooyee hmm. dafa war a jóg tiit ragal ne ah ñëw nañu dee xaw ma nag nan la ñuy tekki solennel ci olof. Euh, ci moment bu am solo boobu ni nga ko waxee ñu coppati ci li yàlla moom di taxawal askan wi bu mel ni tam li nga xamante ni loolu la ñuy wax dafay nekk loo xamante ni buñ ko waxee dañuy jàpp ni lii si c'est juste maanaam euh, nii la waroon mën a demee mais duñ ci njortu dara ci ci pandaw la parce que souvent mooy lii indi coow li waaw duñu wax c'est juste ndax nit mënul def lu juste dañuy yaakaar ne rek. Euh, def nañu li nga xam ne moo waroon nekk yoon loolu moo tax sax ñu indi bu dee tontu nañu ba pare li ñu tontu neexu la àndoo ci